yile image day firndeel ampleuru violence ak harcèlement ci bërëbu liggéeyukaay yi mu nekk ñaari mbir yi nga xamante ne ñu ngay gën di jéggi dayoo te nag ñu ngi jural ay jafe-jafe liggéeykat yu bëri rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy néew di doole yi ceux nga xam ne dañu am liggéey yu demeewul noonu ñoom nag jotuñu seen benn àq ak yelleef ci liggéey bi bu fekkee euh, fitna wala harcèlement bi ñu euh, seetlu ci bërëbu liggéeyukaay yi dafa laal góor ak jigéen saytu gi ñu ko saytu moo tax ñu xam ne ñi mu gën a laal bokk na ci ñoom soxna yi waaye tamit ñi nga xam ne dañoo amee laago. li ni mel tax organisation internationale du travail moo ñu ratifié convention 190. la ratification. xaatimu C 190 bu kuréel bi ëmb liggéeykat euh, yi ci àdduna ngir këpp lu am solo la ngir mën a fexe dindi fi yooyu le fitna. bu ñu jëmalee boobu boobule euh, convention Sénégal dina dal di gën a ñoŋal norme yi nga xamante ne moom la waa biti réew soxla ngir ñu amal liggéey bu mucc ayib. si mbir mi ministère du travail daal di si dalal xel. liggéeykat yi. dans le nouveau projet de code du travail en cours d'élaboration. ci projet bu yees soxal code du travail dina ci amal ay coppite yu am dayoo soxal wàllu violence ak harcèlement loole nag dina doon jéego bu am solo ngir ñu daal di ko fiy jëlee. de cette de cette problématique dans notre législation. ay taskatu xibaar ay syndicaliste ba ci ay kilifa diine ak ay kilifa aada ñoom ñépp ñoo daal di booloo ngir xeex xoxotal ak buntu xatal ñi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci bërëbu liggéeykaay yi ñoom ñépp nag li leen soxal mooy ñu ratifié C190 nim gën a gaawee.